asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen teral ak jàmm ci Sen Sport 221 the best sport news channel Fodé Ballo-Touré léegi joueur AC Milan la transfert bi officiel na lépp xew na tey xam nga ni ki démb lañ waroon a def sax lii di visite médicale bi ñu mujjoon koo reporté tey ji nag lépp xew na def na visite médicale am ba signé contrat wu juróomi at bi nga xamante ni dina ko téye ci club boobu ba 2026 Fodé Ballo-Touré buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi mooy doon ñetteeli sénégalais bi nga xamante ni dina football ci club boobu gannaaw ki nga xamante moy mohammed Adama sar ak ki di ture, ñang ki di fodi binga Touré moy doon ñettelu sénégalais bi nga xamante dina football ci club lay numéro 5 nak lay sol mom ki di balo Touré ci club bobu nga xamante moy AC Milan Napoli tay ji dañu daldi am victoire bu reuy reuy ci premier match bi nga xamante ñu ko am ci pré-saison yi Kalidou Koulibaly nak moy ki nga xamante moy jitu won ligue bobu 12-0 lañu daldi door manam fukki bal ak ñaar mom la Napoli Daldi door club bi ñuy wax Bassa Anonia ndax kat bii mooy ñaareelu yoon ñu leen di wulli wulli yi ni mel ndax en 2017 Napoli daloon na dóor club bi nga xamante ne mooy Barça Anoña bi 17-0 bii na sax wàññeeku na ndax tey ji 12-0 la Napoli dal di dóor Kalidou kulibali moo jiite liggéey boobu maanaam moo doon capitaine club bi nga xamante ne mooy Napoli 12-0 la ñu dóor ci seen premier match bi nga xamante ni moom la amagum ci lii di pré-saison yi. moom Koulibaly moomu nga xamante ni moo doon capitaine club boobu ñu koy annoncé fa li xamante ne mooy Everton. waaye rek kayiti xibaar bi xam na ne seen entraîneur bu bees bi nga xamante ne mooy Spalletti moom bëggul a taxale ko ak ki nga xamante ne mooy Koulibaly maanaam daf ko bëgg am foofu nga xamante ne mooy ci Napoli waaye daal ak lu mën a xew Everton ñoom bëgg nañu ko signé te comme ni kayiti xibaar wéraloon ni yi ñu génn 40 millions la ñu teggum ci table ji Napoli nag ñu Napoli ñu ngi xaar lu ko ëpp maanaam lu ëpp 40 millions yooyu la ñu ngi koy xaar ci ki ne mooy Kalidou Koulibaly coupe du monde 2022 xam ngeen ne ni ki déwén la war a xew foofu la ca Qatar kayiti xibaar bi xam la ne ne coupe du monde boobule dinañu toxal waxtu bi ñu ko doon football ndax tàmmoon nañu di ko joué ci li nga xamante ne mooy juin jàpp juillet waaye nag dañu ko toxal jëlee ko foofu yóbbu ko ci novembre jàpp décembre fële ca Qatar lay xewee kon kayiti xibaar yi wéral nañu ne coupe du monde bii di ñëw nga xamante ni ki déwén la war a xew foofu la ca Qatar duñu ko joué ci juin juillet waaye ñu ngi ko joué diggante la 21 novembre jàpp la 18 décembre ci la ñuy joué li nga xamante ne mooy coupe du monde boobu war a xew fële ca Qatar juróom-ñetti stade yi nga xamante ni sax ñoo ko war a dalal lépp yemb na kon ni ngeen ko xamee fileeg déwén lay xew coupe du monde boobule toxal nañu ko ci weer yi ñu ko doon amal muy ci été bi ñuy wax soma dana jëlee nañ ko fu yóbbu ko ba ci li nga xamante ne mooy novembre jàpp décembre Kingsley Coman kayiti xibaar yi xam na ne jamono Chelsea football club nas nañu ay pexe ngir war ko mën a am ndax jàpp nañu ne ñii di Bayern Munich ñaari at wala ñetti at yu wees yëpp bëggoon nañu signé ki nga xamante ne mooy Callum Hudson-Odoi bi nga xamante ni moom joueur Chelsea la toll ci 20 ans ca Chelsea lànkoon ne ñu leen ko jaay jamono yi nag Chelsea football club mu ngi profité ci situation bi nga xamante ni mooy xew fële ca Bayern seen diggante ak ki nga xamante ne mooy Kingsley Coman ndax xam ngeen ne Coman dafa bañ ne du te benn at moo ci jàpp nañu ne baax na dinañu ko jaay Chelsea jamono yi tegal na leen ki nga xamante ne mooy Callum Hudson-Odoi ñu dal di weccoo ki nga xamante mooy Odoi dem fële ca Bayern Munich su ko defee ki nga xamante ne mooy Kingsley Coman dem nga xamante ne mooy Chelsea Football Club ndax Bayern na dina ko nangu jamono yi mooy li xew Chelsea Football Club mu ngi profité ci occasion bi ngir war a mën a jot ki nga xamante mooy Kingsley Coman Chelsea googule ba tey kayiti xibaar yi xam la ne te pare nañoo teg lu toll ci 50 millions d'euros ngir signé ki nga xamante ne mooy Robert Lewandowski jamono yi moom la Chelsea football club bëgg a signé ni ki fan ñu weesu xamle woon nañu ne sax Chelsea bëgg nañu ki nga xamante ne mooy Erling Haaland te ñu ngi woon ci dossier bi paré won nañu sax jox leen ki nga xamanteni moy Temi Abraham ngir wara mëna jot ki di Erling Haaland waye Borussia Dortmund ñoom mel na ni pareeguñu ngir takalé ko ak Haaland lolu war na ba Chelsea football club jamono yi am option moy signé ki nga xamanteni moy Robert Lewandowski jëlé ko fofu nga xamanteni moy ci Barcelone wala bok ci Bayern Munich 50 millions d'euros mom la Chelsea football club tek ci table ji ngir war ko mëna signé Liverpool mom dañu paré ngir yokk contrat ki nga xamanteni moy sen capitaine bi di Anderson moom nag bu sukkandekoo ci kii di xibaar dese na sax ñaari ati contrat maanaam fii ba 2023 ci la contrat boobu war a jeex jamono mu ngi ci fanweeri at ak benn Liverpool nag li ñu pare mooy yokk contrat bi maanaam lépp lu des ci carrière am mu des ko foofu nga xamante ni mooy ci Liverpool. ba tey ci transfert ki nga xamante ni mooy. Serginho des nekk joueur Barcelone bi nga xamante ni moom sax kayiti xibaar yi xam na ne place am daanaka jamono yi mën nañu wax ne gën na ci néew doole ndax ki nga xamante ne mooy Emerson bi nga xamante ne indi nañu ko dina nekk concurrent bu am doole ci ki nga xamante ne mooy Serginho Dest kayiti xibaar yi xam na ne Barcelone ak na Bayern Munich mën nañu def business ndax Bayern na kat jamono yi dañoo contacter Barcelone ngir war a mën a jot ci ki nga xamante ne mooy Serginho des bu dee Serginho Dest ci boppam moom jàppandiwul ñu mën nañ leen jox ki nga xamante ne mooy Emerson bayaax na dal ak lu mën xew bëgg nañu kenn ci ñaari barcelone yi muy emerson wala Sergio des des nak ci fatali mom desena ay ati contrat lu toll ci ñent at ndax 2025 ci le contrat mo wara jeex ak ñi di wa fc barcelone passa googu lañuy dess ba tay ndax kat sen président bi mel ne ko nakari deret la muy ki di laporta xam nga niki dembu démb yéen a ko ne laporta mu ngi doon menacer ki nga xamanteni moy moriba nako ne kii di Moriba bu fekkente ne moom prolongé wul contrat am dañu koy yóbbu ci U19 bi muy juvenile A foofu lay footballé ji xam ngeen ne Moriba sax jamono yi moom génnee nañ ko ci équipe A bi mu ngi entraîné ak équipe B te ki nga xamante ne mooy Laporta xamaloon na ko ne bu fekkente ne prolongé wul dina ko wàccee ci li nga xamante ne mooy U19 bi. tey jii nag keneen ki mu menacé mooy ki nga xamante ne mooy Ousmane Dembélé Laporta xamal na ko ne day benn at moo des ci contrat bu fekkente ne moom prolongé wul ba pare wàññi salaire am kon moom dinañ ko teg ban ci 12 mois yi nga xamante ne des na ci contrat bi lépp. xam nga Ousmane Dembélé benn at rek moo des ci contrat bi muy fukki weer ak ñaar ki nga xamante ne mooy Laporta mu ngi forcé Ousmane Dembélé ngir mu war a prolongé contrat am moom ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom mooy euh, board bi comité bi nga xamante ne ñooy liggéey ak moom nee nañu daal Ousmane Dembélé na prolongé contrat am ci kaw mu wàññitam itam salaire bi bu fekkente ne loolu xewut mu ñoom dinañu ko teg ban li nga xamante ne mooy douze mois yi des ci contrat bi lépp Ousmane Dembélé nag ak ay agent am ñoom parewuñu benn yoon ngir wuy ji Laporta ci li muy woote ndax kat ñoom jamono yi buñ sukkandekoo ci kayiti xibaar dañoo am waxtaan ak Juventus te Juventus ñoom teg nañu benn deal maanaam di xaar ki nga xamante ne mooy Ousmane Dembélé contrat am jeex su ko defee ñu daal di ko signé librement jox ko salaire bu ama am solo kayiti xibaar yi xam la ne ñi Juventus dañoo dikk kii di Ousmane ak ay agent am salaire bu duun bu am solo ak li nga xamante mooy prime de signature bu am doole loolu waral na ba jamono yi ki nga xamante ne mooy Ousmane Dembélé parewul benn yoon ngir prolonger li nga xamante ne mooy contrat am rawatina nag muy wàññi li nga xamante ne mooy salaire am di des foofu la ca FC Barcelone. Manchester United ñoom ñi ngi profité ci li nga xamante ne mooy coow lii eh, xew ci diggante Barcelone ak Atlético de Madrid xam nga fan yi ñu weesu waxoon nañu leen ne Barcelone ak Atlético dañu bëgg weccoo kii di Saúl bi nga xamante ne moom dafa ëmb ay bagages am teg day dem. Barcelone bëgg ko ba pare bëgg delloo ki nga xamante ne mooy Griezmann foofu la ci Atlético te ba fii ñu waxee déggu amagul seen diggante loolu war na ba Manchester United jamono yi mu ngi am waxtaan bu xóot a seen diggante ak ki nga xamante ne mooy Saúl Ñíguez maanaam Saúl Ñíguez agent jamono yi mu ngi waxtaan waxtaan bu xóot ak ñii di waa Manchester su ko defee ñu profité ci occasion bi ñoom nga xamante mooy Saúl ndax Saúl dafa bëgg a génn foofu la ci Atlético te diggante Barça ak Atlético kat dara leeragut fa kon Manchester United amaan na mën na profité ci occasion boobule war a mën a signé ki nga xamante ne mooy Saúl Ñíguez Javier Pastore yéen a ngi koy fàttale ko ancien joueur Paris Saint-Germain la woon te at yi ñu weesu mu nekk fële nga xamante mooy AS Roma gannaaw bi nga xamee ne Mourinho boole na ko ci liste joueurs yi nga xamante wax nañu leen dañuy génn club boobu maanaam dañu uti feneen fu ñu footballee ji ka kayiti xibaar yi xam na ne ñi di waa AS Monaco ñoo ko bëgg a signé moom kii di Javier Pastore Mourinho xamal na ko carrément ne bokkul ci plan waaye mën